wanam nelawal kanaw mil fahdi comme nelawu fahd fahd nag am na wala fi koy firee kund waaye rabu àll wu mën a nelaw daal aw abbooda wala nelawi abboot yi abboot ab jaam ci arab boo xam ne nee tëdd na nelaw juróom-ñaari na na nelaw nelaw yu mel noonu an ay bil walis ay mbindee fi bi maanaa ay bu mbindeef yi daal bu ko jéem a xam bu ko jéem a liññitu bu ko jéem a laaj melal na dangaa nelaw nelaw yu tar yooyu wëlis ko wa wala tuxaqiq te bul wóorliku zanna njort loo defee rek daal di jafe ni dëgg la bëgg koo dëggal déedéet fa inna zanna akdabul xadis waltaku absara min alhudhudi wa zarqa bi ayni nafsika almuxaqiqi wal takku na nga nekk nag absara gën a mën a xam gën a mën a gis bi ay bi nafsika ci sa ay bi bopp al muxaqaqi ji ñu wërliku na nga ko gën a mën a gis moos min al hudhud ak zarqa hudhud picc suleymaan boobu nga xam ni moom la daan moo daan nekk ci kaw suuf suñu demee ba soxla ndox mu daal di xool fu ndox nekk ci biir suuf fu mu gën jege gis ko daal di daal di ko wane ñu daal di ko gasteel te mu ngi ci kaw suuf yàlla may ko muy gis ndox ci biir suuf mu ne ko nanga gën a mën a gis xudud moom ci sa ay bi bopp wa zarqa sarqa ul yamaama jigéen ju siiw la ju neex a gis ju neexub gis moom la ni moo daan séen lu ñu diir masaafa ñetti fan dana fa séente séen gis bu wóor la koy mooy borom baytuwu siiw woowule ce naabixa di tudd ci kiram hmm. moo gisoon ndiiraanal petax yu nekk diggante ñaari montagne diggante ñaari xeer doon as mbedd su xat ni firr jaar fa neexub gisam kalki na leen ba xam nañu day ba tudd ko ni bañ ko seetee juróom benn fukk ak juróom benn lañu mën hmm. moom la naabixa wax ci xasiidaam wakun ka misli waasitiyin xaflatan an chatmi daariin wa atbi shuquqi nee na wakun nekkal ka misli waasiti yi comme waa waasit waasit dëkk la woon boo xam ni arab yi siiwale nañu ko nit ña fa nekk nit ñu di lu xew ci àddina ñu ñu xamul dara daanaka daal ci xafla xafla mooy yëgadi lu xew ah tax na eh, bokk na ci seeni nawaadir yu ñuy nettali xajaaj ibnu yusufa daana def bu bëggee liggéeyloo eh, nit ñi liggéey yu metti tabaxloo yi mu leen daan def loo ba ñuy daw di ko làqu nee na bu ko defee ñu daw di ku ci waa waasit yi ñu daw di dem ca jàkka ja di fa tuggal di nelawandoo tëddandoo nit ñi foofa di ko làqoo daal nee na su ko defee bu short alkaati bi dikkee di leen wut rek bu ne eh yow waasit yi jógal yaa waasit yi jógal ne ku yëkkati boppam rek mu xam ne kooku ca la mu daal di génnee mu dem ca liggéey bi te dañu daan daw di làqatu ci biir jàkka yi ci mbooloo xam fekk bu ñu nàndoon dañuy xam ni moom day làmbatu xàmmeewut ci ku bokk waaset waaye bu nee nee yaa waasetuy rek ku yëkkati boppam rek mu ne ay yow ci xafla daal mu ni nekkal ku nekkal ci càggante ka misli waasetuy nga càggan ci lan anchet mi daariin walis ngay xas ko koo xam ni dalil ku ñu yab la wa at bi suquqin ak yaddu euh, euh, jëwkat maanaam su fekkee waa ju dalil ju tekkiwul daraa ngi lay yedd wala ab jëwkat a ngi yàq sa der nee na kon xaafilan anu laa tujibu bu ko tontu bu ko bu mu la naqari wacud ala rijlay suleykin haariban min qurbi kulli xumbuqin wa sahwa ne wacud wa wacdu kon wacdu dawal min ada yacdu su ko defee fiilu lamaram ba tey mooy mudaare muñ jësam ada yacdu na nga daw ala rijlay ala rijlay suleykin ci sànq ñaari tànk yu mel na ñaari tànki suleyk bnu salakata ahadu addaai l arab kenn ci dawkati arab yi juróom suleyk ibnu salakata nee na na daw tànk yu mel ni ay tànkam xaari ban ngay aji daw min min qurbi kulli xumbuqin ci jege goonaroon a jege jépp aji nay wa sahwaqin ak bépp fenkat soo leen naree jege nanga daw sore leen ak tànk yu mel ni tànki suleyk bnu salakata yooyu yëpp isharatun li qisasin ay qisa lay junj ci yooyu loolu fànnu badix la isharatu li qisas nadim alfarqadayni tanju min munaqisin wa min turuwi ranaqi wa kun na nga nekk nadim alfarqadayni kuy toogaaleeg ñaari farqad ñaari biddéewi asamaan yoo farqadaan mu ne nee na def ñooña say àndandoo di toogaaleeg ñoom soo ko defee maanaam na nga fexe ba nekk fu kawe fu sore rek su ko defee tan ju nga mucc min mu naqisin ci ku lay jéem a mànkeel di la saboote nga muccit min turu wi ranaqi ci nax-nax bu lay gaar tara a chey u turuwan mooy gaar na xadasa ne benn nax-nax du la gaar kon wa kun ka aqrabin wa dabbin maa man alayka qalbuhum tala bilxanaq wa kun na nga nekk ka aqrabin wa dabbin mel na jiit ak bët ci zamu arab ñu ni e, dañoo amuk xaritoo ndax mbëtt mi e, nee na e, mooy fat jiit ji ah, ah, aqrab waaw mbëtt mi mooy fat jiit ji ci kanam dégg nga euh, dégg nga su ko defee mm, doomi jiit ji mbëtt mi du ko lekk ni muy lekke doomi gunóor yi moom it lu mu koy faye jiitit di ko garde ku bëgg a rëb ku rëbb mbëtt mi di gaskar mi rek mu dal lay jam fettam bi xam nga zaamaati arab yooyu moom la kon na nekk boo nekkee ku soxor ku la soxore añaane la yow nanga nga doon na nga fexe ba nekk moom ni jiit nekkee ak mbëtt rek dégg nga fexe ba mucc ci di jëriñante dàng nag summa talaa taajal wakun wakun abtaa min xuraabi nuuxin aw ka abdin ka abdil musiqi madaali naarin wa baada aamin jaa biha yasubbu fartal xalaqi summa talaa taajal gannaaw ga nag bul bindoo gaawantu bul di gaawantu na nga na ngay teey wa ku nekkal abta a gën a mën a yéex min xuraabi noox ci baaxañu noox ba ba tey arab wax dañu ni noox ba mu nekkee ci tuufaan ma ba mu yàgg-yàgg-yàgg nee na mu yebal baaxañ nag ni ko na nga dem seetal ba ndax léegi ndox mi jeex na ba gaal gi mën a dal walla déet nee ñu mu dem delsiwul ba tey nee ñu moom la ko naan eh, bul gaawtu na nga gën a yéex baaxañu noox ba aw kahi kind wala nga mel ni alfind al musiqi ba nga xam ni nisbatun ila musiqa fànn googul find moom itam madaa dafa wi woon li naarin di wuti safara dañ ko ni demal wuti safara mu daal di dem taaliban di aji sàkku safara mada taaliban li naarin kañ la wa baada aamin kooku daanaka moo ka doon tibloo safara mu ne fokk jaar yoonu misra ñooy wa baada aamin gannaawum at dégg nga jaa a na biha ak safara wa yasubbu muy ŋàññi fartal xalaqi ëpp ngaawtoom kër kër ji xalaq mooy yëngatu kër kër neñu ba mu jàlloog njaatige ba safara wa wadd mu ne taisal taasal ajalat kasaraa sama ngaawtu bi hmm. kookoo mu daal aw yoonu misra wa rek ba mu demee nekk fa ba déwoon mu daal yor safara wa ba muy ñëw nag daal di xelu ñu séen ko safara wadd mu ni lay kasara sama ngaawtu mu ni daal da teylu daal noonu noonu bi saarika wa kun kaman ata bil jeysi xalfa shajarin wa waraq yëpp ay ishaara xisa lay doon ay xisa lay junj rek waxul na jël bi saarika ci sa saar sa àq saar mooy sa fayu ci janaaye jañ la def fexe ba fayu ba sa xol mën a sedd loolu mooy ak saar dañ la reyaloon rey nga wala dañ la defaloon nangam def nga lu ni mel loolu mooy ak saar nanga fexe ba jël sa saar sa fayu wa ku nekkal kaman ataani ki ka nga xam ni andi woon na dikke woon na andi woon na bil jëy si ci lël mu fexe ba indi ko te ña mu jëme lël bi di xeex seeg ñoom mënuñu ko yëg ndax dafa ko làq xalfa kul xalfa shajarin ci gannaaw garab woo raqin ak i xob soo ko dafa junje xisab waaye ba ko defoon turam mu foofu ah, ah, أنا أشار الناظم إلى قصة طسم وجديس طسم الجديس عرب العاربة لن يبوكون عربي جو من القبائل البائدة عرب بائدة موي على جيريوس naax saa yu alku bu yàgg ba seeni desit amatul ci arab yu jëkk a jëkk euh, seen benn buur dafa dañoo ame woon buur boo ku dëng woon ci ñoom di leen tooñ di leen lor eh, ba mujj nee na ñoo ko fexeel daal waa ji mujj muy wax daal na mu ko fexeele moo dajale mbooloo ni leen nan fexe ba nëbbu ba dem kenn ku nekk na yor caru garab bu tooy dégg nga yiiroo ko su ko defee ñu àndandoo ñoom ñëpp di lësës mu mel ni àllu garab yu tooy ndekki góor ñaa ngay dox nag xam nga ci seen waxi saxaanam nee ñu loolu lañu ñu làqoo ba bett waa dëkk ko moo tax mu naan na nga mën a fexeel sa noon fexeel ba jotal sa saar ñooña noonu la ñu defoon ba mën a xeex buur boobu leen daan lor noonu wakun bi waxud kaman ata bil jaysi na nga nekkoon nag ka andi woon leel ba xalfa shajarin ci gannaaw ay garab wa ziwariqin yu boroomi xob fexe ba jekkul làq mbooloo ma ci garab yooyu yow loo mën ci fexe ba mën a jot sa saarul mu ne na nga ko def وانتهز الفرصة مثل بيهسي وبالمدى لحم العداة شرقي وانتهز نغا أوكازيون الفرصة نغا فرفتو الفرصة سب أوكازيون تمكن جار مثل بيهس ملنك واجي وخ بيهس نانا رجلا مغفل لون mustahaanan ku ñàkk solo ku eh, xaw mel ni ku nutóodiku ku ñu doyadal fa axaara ala ixwatihi eh, nee na wa kaana sittatu unaasin min asja eh, fa qataluuhum maanaam fa axaara ala ixwatihi sittatu unaasin wa kaana ji lu mu doon wala kon wakaanu la war a wax wakaanu moom si tata unaasun min asja ay nit yu bokk ci asja fa qataluuhum ñu rey leen ñu bàyyi ko moom bayhas li xillati xanaa'ihi ngir ñàkk tekki dara am eh, ki tekkul dara jarul ñu bakk nee mu des fa muddatan wala tamaa eh, li ummihi fi axdihi bisaari ixwati nee na yaay mustaam yaakaar ni mbokki mbokki bayxas si doomam yooyu ñu rey te ñu doon juróom benn kenn dina ko mën a xata ba nee na muy xata ida samia marratan anna unaasan min ashja fi gaarin ba mu jékkee-jékki ba yàgg mu dégg ni am na ay nit ñu bokk ci ashja boobu ñu ngi nekk ci benn kàmb di fa naan ndox fantalaqa eh, bi xaalin lahu mu daal di wii ànd ak benn najaayam bu ñu wax abu xanash xata ida aqaamahu ala famil xaar ba mu andi ko ba ci buntu xaaru suma dafaahu mu daal di ko ca puus fa qaala darban aba xanash daal di ba wax najaay ji ni ko dóoral aba xanash dóoral fa qaala baaduhum inna aba xanash la batal benn waaye ni ay aba xanash jàmbaar la fa qaala mu ni mukrahun axaak la batal looloo nekk masal la mukrahun axaak la batal maanaam sa mbokk dañ ko forcé du jàmbaar de aw léeb la nee na foofu la jóge aba xanafi fa saara masalan wa daraba bayhasun wa xaalahu alqawma fa qatalaahu foofu daal la bayhas masa defe ak njàmbaar ne mu ne wan tahisil furhata fursat kon bayhas dafa am occasion mu profité ko rek nde bon amul solo mu ne yow nag toujours na ngay profiter say occasion wa kabni qaysin ah, wa wa wa charriq na nga xottite na nga seel ah, laxmal udaati yàppi noonu ya bil mudaa ci ay paaka tashriqu laxmi mooy seel ko noonu wa kabni qaysin ah, wa kabni qaysin bihimu kun muliman walimatan shahiratan kalfalaqi yowma milaakihi bi ummi farwatin arqaba kulla zaati arbain laqi eh, mu pour junj ay xisa rek dafa amoon waay ji ñu wax eh, lashas ibnu qays ku siiw la nag ci arab sayidu kindata ci qabilatu mru il qays mooy seen rais la woon aywa ca tami jaahiliya ak bi mu ñu duggee lislaam kilifa la woon naka jekk dafa mas takk ci madina ndaw suñu wax umu farwata nee na bésu ceyt ba mu daal di génn ak jaaseem rek indiwul benn daaba bu muy reykat de bésu ceyt ba te suba si mu xëy rek yor jaaseem bàyyi ma bu mu dajaleel ci madina rek cor nit ñi riir wax ko kilifa gi fi ne Abu Bakar mu ne ko ah mu wax ko mu ne ko ah nun noonu la ñu xam noonu la ñuy def ci sunu réew nun ci sunu li ñu xam bu waaye de amee ndaje di ceytal kay moom bay ma bu mu dajee rek ñu xam ne nga day rendi rek amul benn ba ku mu jëlal benn nga dikk ñu fay waaye moom day rendi rek bu rendeer sa yëkk nga dikk mu la moo nekk mu ni moo waaye bi xisa rek lay juñ wa mu ni wakkul nekkal moo li man bihim di leen ceytale soo amee sa ndaje na nga leen na xam nga dafa ni noon leen na nga leen seel seen yàpp yi ba na boo dee ceyta sax nga ceytale leen kun moo li man bihim dégg nga ka kab ni qays comme ni lasas ibnu qays doon def wali na nga leen defe walima mooy njàmm ceytal googu walimatan shahiratan walima bu siiw kal falaqi bu siiwee ni ki setu suba fu ne lay dem réew moo dem fekk ko fa bët bu set nee na ibnu qays arqaba dafa rayoon kulle zaati arbain bépp borom ñeenti tànk boo xam ne laq ya daje moom ci jur gi yow ma milaakihi bisu ceytalam um, bi bi mu bis ba mu takkee umu farwata la def wala tada wa in qadarta xiilatan fa hiya ajallu askarin mudahdiqi wala tada bul bàyyi uh, in qadarta wala tada bul bàyyi xiilatan pexe nag wa in qadarta doonte am nga doole mën a forcer bu mu la tax a bàyyi sa say pexe nag bul wóoloo kàttanu kese wa ci pexe fa hiya moom sa xiila ajallu askarin mooy gën jaa màggi soldaar karceb soldaar mbooloom soldaar mu dax di xin bu di aji dammate noonu ya in kaana fi safki damil idda shifa safku safku damil bariyi xayru alyaq nee na nag li nu wax yépp nag in kaana su fekkee nekk na comme li nu wax a sifa u faj faju naqaru xol su fekkee ni faj sa naqaru xol mën na am fii saf ki damil idaay ci tuur deretu say noon sa xol sedd nga fayu nga su fekkee ni tuur deretu noon faj fajug mer la it day ah saf ku damil bari yi tuur deretu ku deful dara xayru alyaq doonu lu yàlla bari yu mooy ku deful benn dara luñ ko war a corriger wala tuxaarib saaqita alqadri fa kam min shaahatin qad xulibat bi baydaqi ci wàllu chatranji xeetu demye boobu nga xam ni boobu modèle moom fawum fa fawukaayu loba farisiya la woon xanaa dafa mujj eh, sarxalu ci biir réewi lislaam yi comme ni nard sarxaloo ci yooyu yëpp jëkkewul woon xëy na ci lislaam nard ak ak chataranji di xam ngeen ko mooy dami kooku ne ci table boobu dafi bët ay carré carré ay doom ne ay xitaa nekk ci ñu di ko randal muy waaw chataranji noonu lay mel waaye moom euh, niroowuñu ay xitaa daal nee na am na ku ñu wax shah shah ci làkku faris mooy buur bu dee malikul muluk ñu ne euh, shah شاه shahan xaw ni nga shahan shah shahan shah moo di malikul muluk shah rek mooy al malik waaye am na lu ñu tudde malik mu yor melaw buur bu ne tuut am na ku ñuy wax bayzaq mooy ba ca gën a tuut am yeneen xita mu ni nag walaa tuxaarib bul di xeex ak bul di xareeg shahid al saqit al qadri ku rot ku rot dayo ku tekkiwul dara bul xeex ak moom ah ndax kat ah moom soo ko mënee doo am doo tiit du am ndam te bu la mënee muy gàcce ah kooku nit day xeex ak ku mu nawloon teel ah, su la dumaa sax doo rus ndax sa natt ngo la ah te soo ko dumaa muy tiitar waaye koo xam tekkiwul dara soo ko dumaa doo yóbbu benn ndam te bu la dumaa muy gàcce bu rëy ah, wala tuxaarib bul xeex ak saaqit al qadari ku rot dayo ndax faka min shaahatin bare na shaah ci qitaaw shatranji moom la ñu tuddee malik xat xulibat boo xam not nañu ko bi bayzaqin ci bayzaq mooy ba ci gën a zalil ba ci gën a ñàkk solo bu tuuti yooyu yaar yëpp ay turi qitaa la ci qitaaw shatranj wa kam xubaara amaha saqrun fa lam yadfar bi gayri xatfihi bidaraq nee na ku saaqitul qadri daal ëpp naa xe joteel wa kam xubaara bare na gëmmeen ah te dégg nga boo xam ne amahaa jublu si na ko saqrun am xoob bëgg ko fàdd falam yasfar xoob ma mujjul gañ bi xayri xat fii lu dul alku ga muy alku dee bi daraqi ca jonkan yi ndax xubaara bi su demee ba ah, kii bi ñatambal ko ba mu jàq rek da koy daal di sànni jonkan yi dafa bu dalee ci laafam yi nag day nëbal dung yi laaf yi dungi xoob yi day daal di rocciku ba set su ko defee day dee ndax dootu mën a naaw noonu lay fayoo moom su ko xob mi bëggee sono rek mu daal di ko sànni jonkan mu suy ko ci laaf yi dung yi day mujj di seey di wadd moom la ni kon xeex ak saaqitul qadri moom jëriñu dara kon nag xubaara boobu saaqitul qadri la bi nisbati li saq wa kam uyunun li usuudin damiyat bilcaddi min bacuudiha almultasiq wa kam uyuunin bare na ay bët li usoodin ñeel ay gaynde bare na bëti gaynde yoo xam ne damiyat nàcc na bilcaddi ci sabab bu matt min bucuudiha ca yooham ya moom gaynde seen yooye leen di daar mu laafal ko ko li adnaa sabab almultasiq ya yooye ca di aji taq ba tax bëti gaynde gi bët yi nàcc nee na loolu dana am te yoo doy na suxuutul xadri ma ngi man ma ngi yem fi yow te itam uluwul xadri ma ngi yem ci gaynde wal xuldu qad mazzaqa aqwaama saba wa hadda saddan muxkamat taannuq wal xuldu janaxi xuld mooy janax yoo xam ne du gis xëy na boo demee ni jaar la mel xuld daal mooy xeetu janax la boo xam ne faarun ama la ñu koy wax yàlla jaar de du gis nee nañu a ah, nee nañu du gis de nee nañu boo nit dee dox nag yëngatu yuuru tànkam ji mu ngi koy dégg moo tax wolof di wax ay dé noppi yi na noppi jaar noppi yu neex yi ku koo xam ni dara mënta yëngatu dégg ko wolof da koy niraleeg jaar naan mu nopp yu neex yi na noppi jaar jaar nee ñu ndaxte jaar boo ko doon seetlu boo dee dox da ngay gis mu ne kott bopp bi déglu daal di tëj déglu dootu dox yëkkati bopp bi nee ñu boo ko tolloo fële di dox say yëngatu yooxu yóoru tànk gi nee ñu da koy dégg ah, waaye nag nee nañu du gis la wala fi wax xaw ma dëgg la wax la wal xuldu nag ganax ji dul gis la tasaare woon aqwaama saba nitu saba ci ne qisa alquran bi wax fa arsalna alayhim sayl hmm. wa sadd wa haddamu saddan ndox mu ñu arrêté woon sakk ko ci benn xur te mooy saddu maarib maarib dëkk la woon ci yaman ñoo yoroon sadd boobu ndox mu ñu fermi woon ci benn ay xeer euh, tabax ko sakk ko mu nekk fa comme bassin yàlla bu toll nag dex nga xam ni ca la ñuy roose seeni mbay yi ndax toujours bu nawet dikkee bu feeseet ca la ñuy nooroo roose Eh, mujj nag ci waxi arab yi nee nañu ay janaxa fa dem eh, dégg nga gas ko gas ba foq ko ndox ma bett leen wal ci ñaay ba yàq tool ya yëpp waaye am na ci ñi nga xam ne mu xaqiqeen ñu ni déedéet li am fi nafsil amri fil waaqe mooy ni eh, dañoo xaw a sàggane entretien ba ñu ko daan def at mu ne rek ndox ma nag ndox dafa am po bu po bi rëyee te def addefuñu ko enterré mbalk sax mën na jëkk bi ak mu kalaate ndox mi tasaaro sunu mbalk bu rëy bii ñu fi buddee woon fii ngeen def kii bi fi ngi fii ñoon def euh, purpeeru kii bi xam nga mbalk mu rëy mi fi ne woon xam nga boo ko gisee dañ ko tabax ñaari mbalk yu ñu tafale la ko defoon bu jëkk ba dama ko tabax noonu muy bu bees guddi ma jël ay raccord booba du ma nelaw guddi ndax liggéey daal di branché ci robinet bi duy leen duy ko ba mu fees rek wóolowu lu dul mu ni tël ndax feer nekku ci eh, dégg nga eh, mu te boo dafa rëy mu daal di kalaate ndox ma toj oh. mu ni am na ñu ne fil xaqiqa xuld eh, saddu maarab dañu ko entretien ba manqué toppatoo wuñu ko rek te ndox ma bare mu jekki-jekki kalaate toj yàq ñaay ba lépp Euh, ñu daal di tàqalikoo mënatuñoo dëkk ci réew ma qaala taala fa arsalna alayhim sayl al arim wa baddalnaahum bi jannatayhim jannatayni la na mu ko waxee wa mazaqnaahum kulla mumazzaq dañoo mujj tasaaroo fu ne réew mu ne ñu dem wa kam euh, nee na mu ni wal xuldu kon nag ku tekkiwul dara mën na andi lor gu metti moo tax bul laa tuxaarib saqatal xad seetal janaxi xuldu lu ko gën ñàkk solo ak la mu yóbbe waa saba ak mazaqa moo tàqalee aqwaama saba ñu toxu mazaqahum kulla mu mazaq wahadda moo màbb saddan saddul ma muhkamat ta anuq bu ñu xerañe woon ak ak liggéeyam bu rafet wala tunaqis ahadan fa kulluna min rajulin wa asluna min alaq wala tunaqis bu lijéema manqueel nag di saboté ahadan kenn fa kullunaa képp ci nun nit min rajulin ci genn góor lanu bokk jóge di aadam wa aslunaa sunu cosaan nag min alaqin ci lumbu lumbu deret suux lumbas deret rekk la gannaaw mani laa tulzimil mar'a uyuba aslihi fal misku aslun asluhu damun fil unuqi laa tulzim bul bëgg a taqale al mar'a waay uyuba aslihi cosaan yëwoon ci ay yowoon ci cosaanam nga ni ko il faut que ma ngi ci yow diw baaxul ndax doomu nee na loolu bul ko def fal misk seetuloo ni misk asluhoo cosaanam damun deret la fil unuqi ji ne ci loos wa ñu ni ñu ni déedéet ci fi mu axari zabiyati lay ne ca njekkikaay la foofu lay ca ganaaw lay ne de ne ci loos nee ñu loolu njuumte la fal misku asluhu damun fil unuq ah ah kon mu ni rek comme misk deret la te deret lu sobewu la lu bon lu ñu daan wàcc la waaye nag moom neexu xetam tax na eh, dégg nga charia charia yi sax laabal ko ba yeggal ñu di ko mu tedd ñu di ko jënd ni ñuy jënd asiya eh, nafisa walxamru mahma tahurat fa baynaha wa bayna asliha bi xukmin farriq walxamru sàngara mahma tahurat waxtu wu laabe nekk xal kon fa farriq tàqaleel baynaha digganteem wa bayna asliha ak cosaanam sa doon sàngara suy mande na nga leen tàqalee bi xukmin ci àtte waxal ni kii dagan na kii xaraam la kii laab na kii sobel hmm. wala tu ayis taamian fi rutbatin li nayliha nadiruhu lam yartaqi fa zardu yowma alxaari lam yasbut lahu fadlun wa kaana alfadlu lilxadar naqi wa xawsu xaajibin bi rahniha lada kisrat ma anna qalbuhu bi maalaqi mu ni wala tu ayis bul xaddiloo taami an ka séeneen amug yaakaar fi rutbatin ci rutba soo gisee waaju am yitte di séeneen jëm ci rutba daraja bu muy sàkku waaye bul ko ca xaddiloo ni ko jomb na la doo ko am nga xam ni muy rutba boo xam ni nadiruhu ab moroomam lam yartaqi musta yéeg li nay lihaa jëm ci am ko waaye moom nag am na yitteeg tama ji ko